mel na ni euh, doomu aadama boo leen dajalee faw nga jariñ leen jariñ loolu it yàlla xam ji mu ko xam moo tax sax mu proposé doomu aadama ak pay ci boo xamante ne wàccoo naag li nga xam ne digal na ko ko kon digal suñu borom yëpp dafa am contrepartie kon nag doomu aadama itam boo dee ànd ak ñoom ñuy séentu ci yow ngay am looy séentu ci ñoom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 mën a defaral seen bopp eau de javel mën a def ay transformation yu jëm ci produits alimentaires yi loole daa mel ni yow yaa ngi wuutu sax état ci loo xam ne état moo fa waroon a taxaw defal ko boppam daa mel ni sëriñ bu ne woon ca daara ja rek nga xam ne tey jii fu mel ni xel koom lafay yeewoo ci doomu aadama ak lañ fay sóor tonnant tonnage bi nga xam ne mooy dem ci cin li bés bu set ak dëwlin ba nga xam ne état moo ko waroon a defal sëriñ ba waaye ab sëriñ taxaw di ko def loole moog formation bii ñu doon def nii benn képp la day mel ni état mën a nekk mënta nekkandoo fépp waaye kenn ku ci ne boo taxawee taxawin wu wel nii day mel ni état nekk na fépp parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokkandoo ñun ñëpp ñoo ci war a dugal suñu loxo kon li ñu doon def ak femmes yi mooy waa quartier Bëgg Bamba mooy waa Paaleen ak ñeneen quartier yi nga xam ne yëpp formé woon nañ leen ñoo xam ne ñii ñu sëddli ko ci jigéen ñi nekk fii nii ñooñee tey jii ñu leen dajale fii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 ñooñee la ñu jëfoon ak ñoom daa mel ni dañoo jiitaloon wax ji ci jëf tey jii nag ñu ñëwoon doon leen jox ay lijaasa kon wax jëf ay mandarga yoo xam ne dix-neuf laa doon wax ci discours boo xam ne 1988 la woon dane doomu aadama yi ñaar la naasu la ak xawmu nee na naasu képp ku sa bopp jëm kaw sa tànk jëm suuf naasu nga waaye nee na xawmu ay mandarga moo koy def ci nit ndax képp koo xam ne kii sa wax démb ak sa jëf tey benn la dëppoo na xawmu nga kon nag wax jëf moom dafa fas yéene formé ay xawm ñoo xam ne ñii la ñuy wax buñ ko nattaleeg seen i jëf dafay dëppoo te gis ngeen ko tey jii la preuve par neuf. ñi nga xam ne tey seppi nañ leen jox leen seeni lijaa lijaasa ñu ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk téeméer ak ñaar fukk muy cent vingt euh, am na ñoo xam ne jotuñu leen a defaral ay lijaasa te formé nañu leen ñooñu aussi ñu ngi woon ci salle bi ay ay quelques soucis moo tax ba mujjuñ leen a jox seen i sa ñoom mais 120 yi moom mooy li nga xam ne xatman la lu am la ñu andil leen ko doon leen ko jox sànq yaakaar naa cérémonie bi lii moo ko dagg. donc ndax accompagnement dañ koy continuer ak ñoom ñun fa ñu leen jëlee moo sori fa ñu ñëw ak ñoom fa ñu tolloog ñoom li war ci ñun mooy ànd ak ñoom puus rek dem ànd ak ñoom ba fa ñu jëm kon ab àndandoo la accompagnement la. cheminement la ensemble donc yaakaar naa ni les femmes li ñu gën a soxla mooy information li ci topp mooy formation li ci topp aussi c'est financement financement aussi par tous les moyens ñu ngi koy rechercher def nañu ko mais daañu ko continuer defaat gën leen dooleel ndax koo formé ba noppi bu amee xam-xam soxla na doole yoo xam ne ji moom lay gën a demee ngir li nga ko formé mu mën a mu mën cee gën a gis boppam kon loolu moom nañ ci dalal seen xel lii ñuy def nii dafa bokk ci petite et moyenne entreprise dafa bokk ci petite et moyenne industrie te loolu lépp fànn la boo xam ne état moo koy gérer rappelé naa sànq ni lii ñuy def nii état la war kon buñ koy defal état tam état dañ koy defal plaidoyer bu ñu def mooy nañu dëpp doole moom it na fexe ba famille yi nii mu fexe ba ñun ñii mu woo ñu ba ñu ñëw mu ne ñu ah comme yaa ngi def lii kon nag nun tam noo ci dugal lii muy suñ participation parce que état ñëpp la fi nekkal état wu ñëpp la